mbir mi dañ ko bokk ñun waa Sotrac waa SIAS ak waa amant Sénégal yaakaar naa c'est la première fois ci réew mi ñu voté benn budget pour ay travailleurs ci assemblée nationale ci un état de droit ba fi nu toog ñuy laaj waxi budget bi tey dañu waroon fekk ñu génn ay paiement parce que li ñu gën a surprendre monsieur le président de la république yow yaa demandé à ce ñu voté budget bi ay mini ay journalistes interpellé la nga ni leen budget bu ñu xas a ba pare yaakaar naa fay moo ci des kon bu ministre des finances génnee ni gars yi kat man dama leen di may lu ñu tabaskee dañuy jël parce que dañu suñ doole dafa néew mais li nga xam dan ko moom muy ay àq ak ay yeleef kooku duñ ko bàyyee laaj mukk jamais au plus grand jamais dañ koy continuer di laaj ci sa magistère ba nga ba nga fiy jóge yaay ñaanu ñu yàlla sax mu gaaw mais nga fay ñu suñu alal balaa ngay dem si jàmm ak salaam def nga lu bëri parce que travailleurs yi ñi ngi lay sant di la gërëm pour pourquoi parce que quelle que soit la situation yëf yi yàgg na gudd na mais fexe nga bu budgétiser ko pour ñu fay ñu ko kooku dañ la ciy sant di la ci gërëm mais nag li nu gën a jaaxal mooy sa ministre bi pour pourquoi ñu exécuter payment yooyu ba fii nu toll nii muy xaalis boo xamante ni génn na ñu war ko jox ay liggéeykat joxuñu leen ko ñuy ay père de famille liggéeyatuñu ñii néew nañu doole ñii wértu am na sax ñu génn nañu àdduna seen i njaboot a fi des kon fi nu tollu li ñuy demande mooy ñu fay liggéey kër yi seen xaalis naam nag ay partenaire lañu ndax dañu la mas di taxaw di la jàppale te loolu masuñu si dellu ginnaaw mais nag li nga xam dañ koo moom kooku duñ ci dellu ginnaaw aussi dañ koy laaj ci dëgg ak yoon ak lu ñu si yoon may rek dañ koy taxawee ñu mës a reculer ci loolu lu mu jari daan ko ci def lu luñ ci fekk ñu xam ne fekk na si suñu si jihaad la ñu fekk parce que ñi ko moom dañoo néew doole te ñi ko moom sonn te ñi ko moom dañ koo ñàkk aussi tamit ils ont donné leur sang à la nation sénégalaise mais au retour ñu si relégué ñu au second plan di ñu piétiner ba nga ñëw taxawalaat loolu sey gouver sa gouvernement c'est étonnant ñu toog ba léegi di traîner les pieds war fay fay ñu nu war ñoo jox joxuñu nu ñun nag taxawaat nañu fi nu toll nii tembe je crois que ñu ngi laaj woo mobilisation pour taxaw jàkkaarloo ak l'état du Sénégal mu jox ñu lu ñu moom ci jàmm ak salaam ay mag lañu nag tojuñu sànniwuñu xeer mais li nu war ñu war ko laaj dinañ ko laaj ci dëgg ak yoon ba fu ñuy àgg ak yow kon vraiment président bi ñu ngi lay demandé di la ñaan nga xoolaat njaboot gi gestuwaat leen parce que sa njaboot lañu ils son vraiment fatigués sonn nañu topp nañ ci ay ati at fon nga fondé ci ñoom espoir bu rëy rëy espoir boobu bëgg ñëw tey ñu piétiné ko dëggaate ko salfaañe ko te yaa ngi toog di jàkkaarloog ñoom kon nag dañ lay demandé à do d'aujourd'hui nga revoiraat situation bi pour que vraiment travailleurs yi rentre dans leur fonds ci jàmm ak salaam loolu daal mooy suñu wax duñ ci sore muy ñetti entités yi nag ñi ngi leen di woowaat à mobilisation président bëgg nañu recevoir am ay émissaires am wax nañu ko en l'occurrence son ancien ministre du travail muy Assane Diop ak audience boobu ñi ngi koy xaar ak ak mbooloo mi pour wan la ni ñun ànd ñoog yow guddi la ñoog yow bëccëg mais du teel li nu moom ñu koy laaj ci dëgg ak yoon duñ ko mas a bàyyee laaj li ñuy laaj treize milliards la treize milliards yooyu biñ ko budgétisé ci at bii nu génn ñu ñun pour l'année deux mille vingt trois la su ma juumulee ñoo ngi ci mois de septembre we at bi lu ci des matatul ñeenti weer treize milliards yooyu Sotrac am nañ ci neuf milliards Ama Sénégal am nañ ci quatre milliards et quelques SIAS am ci près de deux milliards et quelques deux milliards et demi donc loolu mooy l'ensemble du budget muy treize milliards yi donc loolu la ñu doon laaj. bañuñu si woon ay négociation bañuñu si woon waxtaan mais yàlla ci ci mbaaxam dogal président la ci xolam bu rafet ak yërëmam ak yërmandeem mu demande à ce que ñu budgétiser parce que kenn mënu fi demande ñu budgétiser quoi que ce soit que le président de la république kon nag yaakaar na du fondé espoir boobu ci ay liggéeykat wax ka ci réew mi ci bitim réew ba ñëpp yëg ko ñu toog ba léegi nii di ko laajaat loolu loolu gàcce la ci réew gàcce la ci état de droit ñaaw na aussi tamit ci askan nit di ko dégg te nag am na loo xam ne président da ko a bañ parce que ba mu ko waxee yeneen politique yu bari dañu ne du nekk kon bu nu ñëwee ba fii ñu koy laajaat dafay mel ne li ñuy wax mi ngi nekk dëgg kon président na weddi ñooñu gouvernement am nañu weddi ñooñu ñu fay nit ñi seen alal ci jàmm ak salaam. waa SOTRAC les ex de la SOTRAC représentés par le GIE ànd liggéey jariñu ñoom ñoo nekk ñaareelu actionnaire yi conseil d'administration ci Dakar Dem Dikk ginnaaw état du Sénégal loolu nag mu ngi am. ci bi ñu dissoudre Sotrac cotisation yu ñu amoon ci ay action le président Abdoulaye Wade mayoon ñu ko deux cent et quelques ñu nekk treize virgule trente pour cent yoo xam ne moom la ñu représenté ci euh, ci ci capitalu Dakar Dem Dikk loolu bu ko defee kenn nekkul ci suñu kanam ñun ñooy nekk tey ñoo waroon nekk tey les patrons de Dakar Dem Dikk parce que nous sommes les actionnaires majoritaire après l'État loolu nag dafa amul dina jaaxal ñëpp te injustice mënu la gën a flagrante noonu mënu la gën a wéree noonu li tax ma ne dafa amul euh, dafa am loo xam ne lii noonu la doon demee de façon illégale lu jaarul ci yoon ñun ñu jëlaat suñu situation en main taxawalaat suñu ay assemblée général taxawalaat suñu ay structure montewaat suñu ay GIE falaat suñu ay représentants jëliwaat suñu ay droits ci yoon ci ni ko yoonu dëkk bi waxee d'ailleurs la preuve loolu li koy firndeel mooy état bi mu buggee fayaat ex agent yi Sotrac ñun la waxal cela veut simplement dire que lépp dañ koo jaaraat ci yoon ba jëlaat ñun suñu situation en kon bu fekkente ne da GIE bi dafa jël kenn mandaté ko ci conseil d'administration pour mu représenter ko li waroon a am mooy aussitôt comme signifié nañ ko toutes les structures compétentes signifié nañ ko état ci lépp loo xam ne lii mandarga war nañ ko koo mandargal signifié nañ ko conseil d'administration signifié nañ ko ministre du travail signifié nañ ko directeur Dakar Dem Dikk signifié nañ ko ñëpp ñoo xam ne ñi war leen ko li amoon li waroon a jaadu mooy le conseil d'administration suivant le le représentant ñu convoqué ko mu représenter dignement les ex-agents de la SOTRAC loolu moo amul booba ba tey cela veut simplement dire que ñun suñu ay droit ñu ngi koy biaisé kenn représenté wuñ ci structure boo xam ne bii ñun ñoo waroon a nekk aujourd'hui les décideurs loolu nag moom la ñuy wax pré moom la ñuy woo président il si fi moom bu nee woo waa sa SATRAC rek ñu wooñu waaw bu ne bu yëgee xaj na nag yëgul parce que loolu itam mun na am mais bu yëgee ne ñun on n'est pas représenté ci loolu man gëm naa ne au prochain conseil d'administration dinañ ñu dinañ ñu convoqué comme ça ñu mën a représenter dignement les ex-agents de la SOTRAC parce que nag seen yëf la seen alal la seen kaddu la laaj dafa laaj seen kaddu dafa laaj seen avis dafa laaj seen taxawaay parce que seen jumtukaay la boo xam ne bii su ma la waxee ne ñun bu ñu duggee ci Dakar Dem Dikk dañuy fay doomu gëm nan la ñu nekkee les deuxième actionnaire ba pare te fii mu nekk nii ku liggéey woon SOTRAC boo duggee kaar Dakar Dem Dikk ba euh, ten mosoo nekk Dakar Dem Dikk da ngay dagg ticket wala ñu ñàkkee la teggi c'est du n'importe quoi et bien d'autres choses loolu nag mooy li ma lay wax rek nga xam ne euh, moo ci gën a terre à terre nga xam ne lu mu bon bon waroon nañoo xalaat ne ku mas sa nekk Sotrac mën nga am gratuité du transport au niveau de Dakar Dem Dikk